mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax saa su ne di jàkkaarloo ak yéen fii ci Sénégal Buzz 221 ni ñu koy defee rek ak yenn saa su ne di leen dalalal ay ndaanaan di leen dalalal ay kilifa yi nga xamante ne bëgg ngeen leen a gis ñu woo leen fii dalal leen tey nag ñu seet si kenn koo xamante ne nag sénégalais xam nañ ko ràññee ko ci liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy def di ci bëggal sénégalais di ci jàngal bu baax a baax a baax li nga xamante ne aussi moo di sénégalais mu di Alaaji Père Mangone Fall moom la ñu dalal dañu koy bàyyi rek mu ndek bokk baax a siyaar Fall. waaw jërëjëf euh, mbokki Sénégal jërëjëf euh, mbokki internet yi nga xam ne saa su ne tàggoo mm-hmm. di suivre Sénégal Buzz. di mm-hmm. ay liggéeykat yoo xam ne macha allah. soo déggee introduction bi sama doom di def léegi rek. macha allah nga xam ne macha allah métier mi. maîtriser nañ ko te xam nañu fi ñuy duggee ak fi ñuy génnee. Mhm. di nuyu tu réew mi tout. Mhm. maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant. di leen ñaanal jàmm. Mhm. di ñaan tamit seen site bi. na dema dem ba li ngeen ci bëgg suñu borom defal leen ci li gën a kawe seen njort ci barke Serigne Touba Cheikh Ahmadoul Khadim uh-huh. macha allah jërëjëf ci barke Serigne Touba Cheikh Ahmadoul Khadim ñu koy a baax a ci journée xasida bi nga xamante ni na ko képp kuy mérite ñu la ciy bu baax a baax a baax papa mais laata rek ñuy door li nga xamante ni tey moo di suñu waxtaan lan ngay wax njabootu murit googu nga xamante ni tey ñu ngi màggal bés bi waaw Serigne Touba moom moo ko wax nee na nee na nee na ah, moom ay mbiram uh-huh. nee mbootu gune la mm-hmm. saa su ne rek mm-hmm. day gën di law di gën a yaatu mm-hmm. am ñu ne lawtan la foo ko àppal fu nekk rek mën na koo weesu murite mel noonu kooku moom da koo liggéey sàkk ko uh-huh. ñaanal ko uh-huh. boppam ba sunu borom da ko cee fekk ci may ko ci loo xam ne uh-huh. mayu ko ci kenn kenn kenn mu biir àddina yi ne kii li mu liggéeyal sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Khadim li mu liggéeyal boromam bi subhaanahu wa taala nga xam ne dem na ba nu duppee ko jëwriñu yonent bi alayhi salaatu wa sunu borom da ko koo fay ba wis ko ba àddina gis ko ba àddina xam ko nee na maa mën fii maa mën fa nu jëm te ba ëllëg maa mën ci géej gi maa mën ci jéeri ji uh-huh. sëñ Mountakha Bassirou Fatoumata Mame daal di woote tey journée xasida uh-huh. ñooñu uh-huh. ñoom xam na nu ñuy moytoo yàlla ñoom xam nañu fu ñuy jaar ci yàlla ñoom xam na nu ñuy def ba egg ci yàlla kon lii lépp mu boole di ko def. ak di taxaw. yërëm jaam ñi rek pour xëttilu rek. wallaay dëgg la bëgg rek lu ñu xëttili rek. moom moo tax lii. waaw journée xaside yi ndax xam nga lépp ngi ci xaside yi. deferee ngi ci. defaroo ngi ci. waaw te sëñ Tuubaa nee na man. Cheikh Ahmadou Khadim. bu ma kenn du tuddee fun may noonoo. ñu ne ko Balla ay si lu tax mu ne biir na ma ne képp kuy ma noonoo di nga lakk. Mhm. te man Cheikh Ahmadou Khadim bëgguma kenn loru mu jógee ci man. yoo xam nga ne ku noonoo sëñ Tuubaa di nga lakk. wallaay dëgg la waaye mhm. nee na man bëgguma mhm. Cheikh Ahmadou Khadim borom loxo bu tuuti. Mhm. ëllëg doomu aadama. di lakk mu bawoo ci man. macha kon loolu rek laay mën a wax ci xasaayit jërëjëf nag ba kii mënul woon ñàkk nag ñu dooree ko ku ne xam ne tolluwaayam ci waa kër Serigne Bamba moo tax lu mel nii rek bu xewee bu ñu toogee ak moom foog ñu laal ci tuuti waaye papa rek dañuy ñëw ci li nga xamante ni tey bëgg naa tuuti ñu waxtaan ci mu di ki nga xamante ni suñu papa alaaj Mbaye Gueye di ñaan yàlla yërëm koo te xaaree ko àjjana ku ne xam sa diggante ak moom ku ne xam ni nga xamante ne dund nga ko ci làmb dafa euh, dund ak ñoom lu bëree bëri bëri ci làmb tey jëmm jooju wan ñu ginnaaw lakk nga ñu mën a wax tuuti ci jëmm jooju waaw jërëjëf euh, euh, sama doom dugg nga foo xam ne dugg nga ku ma xam koo xam ne damaa doon ku ne nag. Mhm. di ko seetaan. Mhm. di ko seetaan ci mbappat. Mhm. ba ni mu duggee ci arène ma di ko seetaan. di ko seetaan bien avant boobu c'était un de foot. latéral bu weex la woon. ndeysaan. ci équipe bu ne Concorde. boobu diggante Colobane mm-hmm. ak Fass mm-hmm. joueurs yu ëppoon foofu na nekkoon mm-hmm. amoon benn gardien de but boo xam ne actuellement salle de musculation la yor nu ko Serigne Thiam Serigne Thiam góolul na ko nu naan ko Thiam Hercule yor na bombardier c'est un préparateur physique liggéey na ak bombardier yor na salle de musculation liggéey na ak euh, mbër yu baree bari ay mm. athlètes yu bari. Mm-hmm. ndax salle de musculation la yoroon dëkk Colobane. ñu koy wax Thiam Hercule. Mm-hmm. Thiam Hercule moomu daan na leen góolul. moom mm-hmm. bay Guèye la Tigre de Fass. may ñaan sunu boroom xare ko àjjana. amiin amiin suuf oyof ci kawam. ma xam tamit ay euh, rakkam. wax dëgg yàlla. Moustapha moo ci gën a tuuti. wax dëgg yàlla. ñoom Abdou Wane ñoom Papa Gueye xeer nga xam ne bëri na ak Mansour Diop bu Pikine ñoom Abdou Gueye nga xam ne Abdou Gueye moo nekk police moom it rakkam la actuellement entraîneur la Fass waaye soo gisee ñu bari ci Fass bëgg làmb ñi ngi ko jëlee ci mbay Gueye le Tigre de Fass Mbaye Gueye le mi ngi ko jëlee ci ñoom Faga ak maam góor gi ndax maam góor gi moo ko féete woon mag naam Tëngéej la dëkk waaye nag dakaar la nekkoon Dakar gi la nekkoon ñi ne yàq jëf soo fa jógee daldi ñëw daal di wàcc nag ba bi maam góor gi di bëre am na ñu maam góor gi bëreel hmm? mbay géey bëre ak ñoom hmm. am na ñu maam góor gi bëreel hmm. mbay géey bërewul ak ñoom maam góor gi ak Ibou Senghor kooku am na waaye maam góor gi ak géej jóob te mbay géey bëriwul ak géej jóob ndax génération yi bokkul doonoo rawante maam góor gi bëri na ak Doudou Bakassar te mbay Gueye la Tigre de Fass bëriwul ak Doudou Bakassar mhm. ndax génération yi bokkul mhm. soo demee di xool ci làmbam mhm. li mu ci def ak li mu ci am. tey su doon tey la milliardaire la moom Mbaye Gueye la. Mhm. Tigre de Fass. surtout point boobu noonu bëggoon naa la ci laal tuuti papa euh, doguma la tey ndeysaan euh, mbëru démb yi tey euh, bu ñu leen xool ak mbëru tey différence am na xëy na ñooy jamonoy xale tey a neex que ñoom seen jamono waaye ñoo daan gën a dund làmb seen làmb gënoon a métti. man ñooñu ñoo dàqoon a mhm. ñoo gënoon a am fit. Mhm. ñoo gënoon a man làmb. ndax tey rek ngay gis nit ñëw sol pantalon dugg ci biir làmb. am na mbër yu bari yoo xam ne fi mu ne doonoo am complexe ren di seega ren di seega. waaw mooy la sax mbër yu ko xamul. Eh, gis nga xamul ko di seega. Mhm. danga daan sëf lu war a mat ay ñaar fukki sër ak juróom. Mhm. ngemb ba dongali. Mhm. sol sa seulement. takk ay jaaj. takk ay ndombay përëg. takk ay caq. daal di jël puudar boo xam ne doon koy jël def ko bu weex tàll mu nekk sa ñu naan ko ren di seega seega it ab alkaati la woon boo xam ne ñu ngi ko reyee fii diggante kipp ko ko ak almen ko mhm. ci ak basan bi ñu ko reyee ba mu génn àddina deret ja na mu tuuroo noonu mhm. daal di takk ci put gi mhm. ba nu xëyee ñëw léegi bi ko police di enlever di yóbbu ak sapeur pompier bi nu xoolee deret ji ni muy siitee ci ëllëg sa la jigéen ñëpp jël puudar bu weex di ko def ci seen baat daal ne rendi seega seega ab alkaati la woon seega ab alkaati la woon ab alkaati la woon bu weex boobu uh-huh. ca seega mooy deret ju xonq ja uh-huh. ca seega mooy deret bu xonq ba waaye ku ne Alaaji Mbaye Gueye di nga wax ki nga xamante ni moo di Moustapha Gueye di raxam hmm. mu tette ko dugal ko ci làmb wan ko li nga xamante ni aussi moo di yoon ci làmb tey naka nga mën a jàngatee sénégalais li ñu doon wax Moustapha dafa seetaan magam wala jàppale ko te ñu gisoon bu baax a baax dafa demoon na ba jël ki nga xamante ni moo di Mbaye Gueye fa ak moom ci këram tey kàddu yooyu noonu boo ko doon dégg ci Sénégal wala nit ñi di wax lu mel noonu lu mu lay def. Ah, wax nga kàddu gu ñu ne Moustapha dafa seetaan Mbaye Guèye. Mm-hmm. daan na dañ ko wax ci laata muy dund. Mm-hmm. ñun ah man de damaa dëkkut ak ñoom. Mm-hmm. man Caaroy Géej laa dëkk samay nit nanu nag lool. ndaxte mbay Guèye la Tigre de naam ci genn wàll gi. laal na ci séeréer. waaye origine ba soo ko toppee mu ngi dëkk diggante jokkili bànneex jokkili aali ngoone njargaan njoba déggan ndóof njuufee nug maali kumba cëttangu juuf sëñ Aliou Diouf làmbaay mbokk ma sëñ Mbay cargaan mbokk ma ndax soo dee xool soxna Moustapha Gueye le tigre de sax nu ko wax jaraaf njaay jaraaf njaay moomu soo ko dee xool sët la ci sëñ Mbay cargaan yaa satu njaay mi leen jur foofa la dëkk foofu la dëkk. Mm-hmm. waaw mi nga bokk ci ñoom. Mm-hmm. sëñ Mbaye Thiergane ak sëñ Aliou.